xam ne daal na koy dund depuis avril 2023. waaw li ma yëg nag tey mooy euh, sant yàlla sant yàlla bu wér parce que mois d'avril bi passé heure bi Amina ci la yàlla dogal ne ci la tegoon loxo Bassirou Diomaye Diakhar Faye keroog mu ngi sol benn genre sëñ son bu bu vert nii keroog nag man ak président. Euh, Malick Gakou ak euh, euh, Abbas Fall ak euh, ñu bari d'ailleurs ci waa parce que fekk nañ leen dig ñu dem seete ko tey nag tombé abril avril benn émission matinale fii dama ni umee palais umee kaso koor fas yéenee korité palais su dee Macky Sall bëgg na Sénégal parce que boobu la Macky Sall wax ne quel que soit li xew ci élection yi man le 2 avril damay dem même bu dee deuxième tour dafa am man damay dem kon xalaatu woon ne xëj na bu deuxième tour amee kon Macky Sall na def passation de service kon la ba la onze est-ce que mbir mi dina fi xëj ñu campagne fi tëgg fi deuxième tour prestation de serment passation de service et cetera loolu yëpp est-ce que ci neuf jours dina fi xëj balaa korite ga ñun fii lañ toogoon matinal boobu may calculer jours yi. Hmm. ma ne dina am tamit jamonoy contentieux. Hmm. su résultat génnee conseil constitutionnel danaan may naa leen ñaari fan. Hmm. comme que daar daar lañ ne nag conseil constitutionnel mën na may vingt quatre heures pour képp koo xam ne am nga looy kalaame nga ñëw yooyu noonu yëpp keroog dañ ko doon calculer fii biñ ko calculer nag affaire bi daanaka génn. le 10 ak le 11 te ñu jàpp ne côté boobu moom mooy nekk korité ma ne leen waaye nag yàlla mën na lu ne Macky Sall mii mën naa def de service le 2 avril boobu muy wax mën na tombe ne Bassirou Diomaye Faye ñoom ñaar nañ fi joxante loxo kon nag loolu ñuy ñaan umee koor kaso korité palais kon dina ne mm-hmm. yàlla suturaal ñu suturaal réew mi mhm. suturaalul ñu gañe suturaalul tam ñu gañe ñu génn ci génn bu honorifique mais réew mi ci boppam la yàlla ji suturaal parce que tey ñëpp a ko wax foofu ku nekk doon nga xalaat ne réew mi mhm. am na foo xam ni mais yàlla saa su ne rek ñun daf ñuy daf ñuy sàmm mhm. tey loolu la nit ñi jàng foofu leçon de vie bu rëy nag am na fa surtout bi gars yi gisee écran yi président Ousmane Sonko fi mu toog ci ordre protocolaire bi effacé bi mu effacé wu benn instant yuuxu nañ fa Sonko so mais deuxième fois bi dañ ne prési prési ñu ne bokk na ca ñi defar loola. moom moo joxe information bi. fi ñu toogoon noonu ñu loolu la ñu wax parce que gis nañ benn instant déewanteeg moom c'est c'est c'est c'est c'est un grand monsieur. Mm-hmm. yàlla nag moom mooy maye xaw ma lu ko yàlla mayul mais grandeur bokk ci waaw man tey daal képp ku fa ñëw képp ku ñëw tey man centre Abdou Diouf man maa ngi fay doog dugg tey. <laughs> si si effectivement bëgguma la bëgguma la dog <laughs> mais euh, comme nu ñu doon wax que ni dañu ragal Ousmane Sonko euh, posé li nga xam ne mooy ombre mooy Diomaye Faye waaye mu mel ne euh, nous nous sommes trompés largement sur ça. non non non non xam nga man moom man de li ma gëm. Mm-hmm. man Ahmed Aidara dund ko ak moom ñu nekkoon ci benn coalition man loolu laa jàppee nit kii di Ousmane Sonko te ba léegi man gisuma benn yoon mu def la contraire liñ doon def saay bu xëccoo amee mais Ousmane Sonko moom il préfère moom bon. na ñun waaw te ñëpp xamoon nañ ne muy local muy député. dañu waxante dëgg rek te yàlla rek tax man maire laa député la mënoon na yàlla dogal ñu falu ba pare war am wala changer discours wala doxalee neneen te naan suñu objectif atteindre nañ ko ñun rakk waa ji lañ bëggoon mu jóge fii après on retourne au bureau jeex na mais ci jamonoom nag ku ne bëggoon nga Ousmane ko jaar sa commune wallahi man mii su ma la waxee ñaata responsable yu nekk biir yeewi askan wi nekk à l'intérieur du pays di ma woo ne ma sawaay est-ce que sawaay bu ñëwee ba bërëb nangam est-ce que gars yi dina dugg si ñun ci suñ commune ma ne mais man protocole Ousmane Sonko ba ñoom Jibi Gueye Ndiaye yor ah maag Jibi Gueye Ndiaye dañoo jàkkaarloo kër mais man nekkuma foofu de grand mais grand nekkoo foofu mais yow sa téléphone na ñor ñun na fi romb rek <laughs> ñu dem ba présidence assemblée nationale man ak Barthélémy Dias on était candidat les seuls deux candidats. Mhm. de Yewwi. Mhm. mais moom il avait vingt cinq députés bu ko neexoon mu ne ñin ñii nga xam ne ñun ñoo doon diri affaire bi léegi léegi léegi li mais moom élection locale yi gox yu bari waa Pastef suñ defee choix ci waa yeewi ci yenn gox yi mais dañuy préférer ñoom defar seen liste Ousmane Sonko amul fenn fu waa Pastef defar seen liste mu ñëw fa mel ni ku leen di dooleel man témoin laa sur cinq communes yu nekk Guédiawaye Pastef quatre commune yëpp dañoo demal seen bopp mais jour bi Ousmane Sonko dugg see fii biir Guédiawaye ñun dañoo dajeeg waa Pastef ñu yor photo Ousmane Sonko yëpp mais sa waay non mais c'est terrible dafa woon Sénégal yëpp ne leen man coalition Yewwi Askan Wi bii man fii laa bokk man ñii laa bëgg ñu gagné yemu ca de pare def vidéo pour attaquer. ñi nga xam ne dañ koo déggalul wala léeg léeg léeg léeg man loolu noonu rek laa jàpp ne moom mooy continuer ci digganteem ak Bassirou Diomaye Diakhar fay man amee ay dara. njort gu rafet man laa ci am. Mhm. de sa part attention man nag damay wax aussi man damay wax ci télé ñun ñëpp di ma dégg man moom j'ai une ligne éditoriale boo xamante ni moom tellement critique et salée Abdoulaye Wade xam na ci dara Macky Sall xam na ci dara man moom laa ko xamal. Mhm. man loolu laa ko xamal Bassirou Diomaye Faye nag man xamuma ko li ma ko xamal daal def nañ émission seen jotaay ku ku ku ku ku. ku waaw ku noppi ba pare moom daal sawaay yi xam naa daal genre allemand la ma jox damay bañ a bàkkaar. déedéet <laughs> waaye Ahmed boo genre toog fii tam bëgg lu neex waa Pastef rek ma naan leen suñu président bi ñu comme que ci yéen la bokk ñu naan dégg leen. ñun ñëpp dañoo ragale a critiquer waa Pastef parce que ku leen critiquer dañ lay song de moi je ne suis pas de ce man damay wax dëgg te yàlla rek tax. est nekkul yaru bi tamit moo ëpp. man daal da ngeen maa laaj man <laughs> kay daal laa côtoyé pendant des années. Mhm. avant la yeewi ba ci yeewi bi bi mu jotee. TDR mhm. yi. Mhm. terme de référence yi. man Ousmane Sonko moo ma ko yónnee man Ahmed Aïdara. ok ne ma ñëwal ma dugg ci biir coalition yeewi askan yi en tant que leader mouvement Guédiawaye laa bokk. mu ne ma jeudi la incha allah moom Sonko ma liir mu ne ma léegi boo ñëwee di va signer comme tous les leaders. dugg na fi génn fi. moom bu dee dafa am koo xam ne dañ ne ma coppe ne ma kaay dugg biir yeer yi moom la. heure proposé itam bi mu jotee pour proposer maire fii nii si Géejawaay ville de Géejawaay man day wéet naa moom mu wax ma benn affaire ne ma Sénégal ba mu sama kàddu ci ñaar la ma jiitu te du ma leen war muy yow ak Barthélémy Dias Hmm. man Barth sama xarit la et je le revendique pas parce que dafa laale gars yi rek que may daw ay deuxième de non man sama xarit dama koy matal ba mat ah oui vous comprenez mu ne ma yow ak Barthélemy Diaz dama leen a jox sama kàddu te du ma ko wor léegi nag yooyu noonu yëpp man chaque jour man moom laay boole pour wax leen kan mooy kii l'homme mais nag son excellence monsieur le président de la <laughs> yàlla dogal na xëy na Clédor moom macha allah moom moo ëpp xam-xam. ba pare gën ma nekk politique. Euh, jiituma ci bagages yi. moom bu xoolee nii rek moom dina ko mën a kii mais ñun on voit quelqu'un rek en tant que journaliste rek aca ëpp ne en tout cas daal waa ji daal li ma ko xamee moom. strict dafa dafa carré quoi. <laughs> d'accord muy dox daal jeex na bi alors Moustapha balaa ñuy ñëw ci suñu invité Clédor Sène may fàttali ni euh, tey moom lañ fi dalal. et mm-hmm. ñëw na sax euh, xanaa rek nga sànni dara ci li nga xam ne monsieur monsieur.